yaa rabbana bi xormati aboneel ci seen bi di Thiamène TV di bés cloche bi tey abonné bu baax a baax a fil jox ci àdduna xaqam ndax àdduna boo ci nekkee yi ñu tuddee àdduna mooy ñeent yi alal joo xam ne danga nga koo dajale ngir am lu woom rek te amul benn xarat saxiix bu sharia nangu boo xam ne moo tax fekkente ne danga nga koo fas yéenee puukare woo wala nga fas ko yéene yëkkati koo ne yaa féete kaw nit ñi wala nga fas ko yéene bànneexoo rek rek rek loolu yëpp fekkee moo tax sëñ Tuubaa ne awaluha maalu wa saaniha am ñam itam biir boo xam ne dafay fees dell leeru yàlla bu ca dugg nam ca war a duggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne seen borom de am na jamono yoo xam ne day tibb di xëpp ay leeram li ànd ak yërmandeem ni ngeen fexe ba taatan seen ndëpp ci jamono yooyu na ngay taatane sa ndab bokk na ci na sa xol féex bëgg àdduna bu metti nekku ci bëgg daraja wala bañ jullit wala lépp genn caay-caay nekku ci te bu ca reggaay itam nekk na nekk diggante xiif ak suur ak si diggante bi xiif moo gën suur waaye xiif bu metti bi itam kenn taamu ko santaane wuñ ko ci sharia diggante boobu bu fekkee ne taatan nga sa xol mooy yaa ngi def sa xel ci yàlla malaayika yi ne dañuy wàcc ànd ak ay leer dañuy yër xol yi xol boo xam ne féex na te ndab lu set la ñu raxas ko ñu duy ko ba mu fees bu dul loolu nag ñu rombale di xol bu ñu fekk ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne ci xaaji yi ay malaayika daañu wàcc malaayika yërmande yoo xam ne leer nañu indi ak njëgal bu ñu dikkee dañuy balul jaam ñi waaye ñaari jaam ñu ñu fekk ñu set dara maanaam ñu tongoo kenn bañ a tuddi sa moroom ñu ñu merante duñ leen jégalul duñ leen defal dara dañ leen di romb loolu moo tax wax dinaa mun na mënu nit ki mooy tànn léegi fii ci àdduna fu muy jëm ëllëg bu dee àjjana bu dee fa ca des ndax nee ñu fekk sa row gi rotegul yaa ngi noyyi sa mbir a gis sa loxo bu la neexee nga jëm fii bu la neexee nga jëm fii mooy waxee dinaa mën na jidee ni mooy ñaar yoon ñi la suñu jàpp ni leen xam ne wenn wu ci nekk mën nga ko seet na ba xam ne mën nga ko bu sàkkal la mën-mën boo xam ne ci yoon woowu te dara du manqué ñu ne li ne ci misaal ci yeete ci àdduna ñetti nit dañu bokkoon benn néeg di nelaw mu ngi fanaanee julli rek ki ci des fanaanee nelaw rek ki ci des fanaanee ree ñu di leen laaj ki nga xam ne dafa fanaanee julli mbiram leer na kenn laaju ko kenn laaj ci ko jaaxalul kenn ki fanaanee ree ñu ne ko yow looy ree mu ni man day li may ree waa ji nga xam ne day julli léeg-léeg mu jaamu yàlla ci teewlu bu metti ba ci cëram yëpp di rox di lox ba nga xam ne ñu ngi koy bëgg a indil bi seytaane dal di daw si ngir dox digganteem ak boobu le ngir yàqal ko ndax boo amee fatx yaa gën a soof seytaane adduna ak li ci biiram seytaane daf lay ragal ba du la jege te kon da nga koy yàqal lu bari te dangay ngay gindi nit ñu bari ndax foo toog yërmande yàlla toog fa malaayka yi dañ fay nekk nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne Sidina Omar du soobu menn mbedd lu dul seytaane dawee na ca mbedd moomu le seytaan noonu lay ragalee képp koo xam ne fatxo ngi jëm ci yow ndax bu fatxo gi accès moom ci boppam day lot bu la jubee cëram yépp day damm loolu te tax bi nga xamee ne waa ji mi ngi bëgg a fatxu gaa ngi ko bëgg a dikkal seytaane daw si di daw ba jub ko waa ji xam ne mooy bu ko seytaane jubee moom moom kii ree leeru xolam googu fakkatal seytaane mu daanu moom ree jàpp ko loolu nag moom mi nga xam ne ay bu fekkente ne waaw kii nelaw xandoor yi muy xandoor moom mooy aalim bi aalim bi nga xam ne aabid la dafa bari xam-xam ba noppi jëfee la mu xam xandoor muy xandoor la seytaane ragal ba bu ko defee bu ko jubsee rek dal di daw moom la waa ji di ree ki fanaane ree moom loolu lay ree ak yeneen i mbir mbóot yoo xam ne ay mbóot la yu kéemaane la yoo xam ne day daw ci jaam ñi bu fekkee ne nit ñaa ngi nelaw mu janloog seen mbir yépp kii julli itam mu janloog ñoom yépp gis ne ni ko seytaane yabe te di ko wut si te toujours nag xandoor yi waa ji nelaw moo koy dàq ci jamono yooyu loolu la doon ree gaa yi ñu ne mbokki taalibe yi. foofu la Serigne Sam Mbaye yemale conférence bi ndax eh, waxtu yi mu war a dem aéroport jot na. ngir ñu dellu siwaat nag ñu yokk eh, bi nga xam ne fi la ñu jóge woon tàmbali liggéey bi ñu doon dox eh, kon ginnaaw bu sëriñ Sam éggalee kàddu yu rafet yooyu ak conférence bu sol solo bi la jox sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mourtala Mbàkke moom it mu dénk taalib yi ñaanal leen